di tuddee magam tuddee rakkam tuddee soppeem Balla Gaye numéro 2 muy lu ak lu làmb gépp rafetlu muy lu réew mi yëpp rafetlu tungu du teew nag kenn di nataal bu teewul Balla Gaye numéro 2 mi ngi nii toog Balla àdduna yëpp la ñuy déglu ah, ah tey sa mag sa xarit tuddee la doom tey Balla ban mbégte nga am tey jërëjëf buur ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi sant suñu ñaari waajur yi bu baax a baax a baax di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul njabootam waa kër Serigne Alaaji Malick maa ngi moom laay bukkunta di sant ñi fi teew ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm liiru jaan borom bis bi ko sant ci geste bu rafet bi nga xamante ne def na ko balaa ñoo sori nag ci liiru jaan ñu gërëm mbooloo yi fi teew ñëpp di gërëm jëy seen bi nga xamante ne nag wax yàlla doomu ndey liiru jàlla magam la xaritam la lu wër la léppam la di gërëm Abdou mii nga xamante ne toog fii ak man ak Saliou Samb ak géwél yëpp di nuyu li comment guy gi bu ma ko nuyoo rek daanaka nuyu naa mbëru géejawaay yëpp di nuyu général Malika aussi tamit bu baax di nuyu waa Parcelles yi fi teewu di nuyu Mansour di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn. tey yaakaar naa ne am nga mbégte tey. waaw am naa mbégte ndax euh, liiru moom wax dëgg yàlla bu ko xam-xamee ko Balla Gaye numéro di ko jàppale di ko taxawu te xam nga ne liiru nag aussi moo ma yar ba ma nekkee xale ba léegi wax dëgg yàlla moom am cofeel ci man am bëgg-bëgg ci man ak yëg-yëg ba yàlla dogal lii muy dogal ni tey kon donc moo ko defee daanaka. àdduna la ko defar géejawaay la ko defaral defaral na ko képp ku soppi Balla Gaye numéro 2 ak ay am di jàmm ak ay saf wane na ne exemple tey nit ku baax nii lay def moo ngi wane exemple yu rafet mu ngi wane jikko yu rafet mu ngi defal jikko yi nga xamante ne vraiment ku amul woon jikko bu baax sax di nga jëm a fexe am lu jikko ju baax ndax lii daal li muy def kon donc ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko wane ne toujours rek exemplaire la ci géejawaay li muy wax lu dëgg la ci moom li muy wax aussi tamit mu ngi koy jëfee mu ngi koy wane ba tax na daal ñu ngi koy sant di ko gërëm taxawaayu rafet yi nga xamante ne mu ngi koy taxaw ci biir géejawaay xebalul kenn bisam te ku am bisam aussi tamit mu taxawu la kon donc moom bisam nii la mën a mel te ñoo ngi koy sant ñaanu ko yàlla yàlla guddal fanam te wér ko cëram bu baax a baax. yaakaar naa ne tey ñëpp nangu nañ ni Lirou Diane il est le monument de Guédiawaye ndax puso bi mu yor di ñaw. diggante yi bëggul dara lu ñaaw ci biir géejawaay waaye njiit sàkkul boppam yàlla moo koy sàkk gis nañ ni Balla Gaye numéro 2 fii boo tuddee mbër ci biir géejawaay xel yëpp ci Balla gay numéro 2 lay dem sa digganteeg say rakk fii ci biir géejawaay sa digganteeg mbëru géejawaay tey daanaka ñu ci bëri teew nañ fii ci biir euh, tudd bi lan nga leen di wax. waaw di leen sant bu baax di leen gërëm ndax fii nga wax nii fii ñu toog nii bayal bee bëri naa fa te bu yàlla dogalee mu ñëwaat fi ngénte loolu dama ciy sant yàlla géejawaay nag géejuwaay la kon ni ko Parcelles nekkee kon ni ko Pikine nekkee kon nu ko waa jàmm gën nekkee waaye lépp Sénégal la te jàmm rek moo xew biir géejawaay ñu ngi ñaanal yàlla na ko si suñu raq yi nga kon ni nga ko limee yàlla defal leen jàmm yàlla defal leen tawféex ba lu ñu bëgg seen carrière yi suñu borom mottali leen ko yàlla àggali leen ko yàlla taxawu leen kon ni ma ko faral di waxee rek sama gémmiñ gi musuma wax nit lu bon wala lu ñaaw te àdduna mënta doxa doxa dox dox ba mu jaral ma may yàqal nit lu ñaaw ak lu bon dara jaraluma ko ndax man euh, dama am ay ñaari waajur yu baax ku leen xam ku xam Double xam ko ci dëgg xam ko ci fulla xam ko ci fayda sama turandoo yar ma def lii nga xamante ne moo nekk ci man muy wàllu làmb muy bàyyi bàlla yàlla yërëm ko taxaaru kaa àjjana ak suma ñu fa fekk ñëpp lu rafet lu baax rek la ma yaree te ci loolu laay sax ci loolu laay dox donc vraiment maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàll waaye bàlla accident ci biir mbokk xel mu sell moo koy constaté mm. te fils de bàlla sa rakk la te tey liiru jaan lii mu def géejawaay gépp la ko defal est-ce que pare nga pour dem seeti sarak ak cofeel bi mu am ci ndax gis naa ne génn bu mu génn du dara lu dul cofeel rek nit ku la sopp rek moo mën a réagir noonu. waa xam nga àdduna moom àdduna la mun naa maslaa ñépp waaye mënumaa doon xaritu ñëpp àdduna noon la baaxoo liiru jaan mii nga xamante ne ñëwal naa ko bisam duma ko ko xeebal. maanaam bu laaloon basang sax woo ma ma ñëw parce que daf maa jëfal jëf joo xamante ne ni depuis ma nekk xale laa wax ma nekk xale tuuti tànk muy xeex ngir man muy xuloo ngir man muy jàppante ngir man ba ni may màggee ba yor njaboot yor soxna kooku xam ngay bisam kenn du ko teewal ñi si des nag su may raq lañ dañ ma fekk ci bay bi ci tool bi ma bay bay bay bay bay bay ba tool bi naat kon ñëpp dañu ma war a respecté jox ma cër ndax tool bi dama cee sonn reyante ci ñàkkante ci sacrifier suma life ngir géejawaay aw ma lu géejawaay moom laa gëm kon képp ku yeewoo géejawaay jàmm nga ma war a ñaanal yàlla guddal fa foo dem wala foo ma gisee nga jox ma sa ñaari loxo ndax man ñëpp laa respecté ñëpp laa jox cër amu ku ci amul bisam ma taxawu la taxaw naa ñëpp sama live taxaw naa ñëpp dimbali naa ñëpp jàppale naa ñëpp loolu yàlla rek moo ko am nag moo ko mën mais yàlla boole na ñoo xamante ne vraiment pour man li may wax rek ñoom ñëpp su may ràq lañ su may frère lañ dañuy joxe cër nag ndax cër dafa am solo man kenn rek moom mën a wax Samba Laar muy sama ndey ak sama baay ak samay mbokk ndax mbokk mooy nit gis nga école di nga bokk ak nit da ngeen di bokk classe wala ngeen bokk la création man ñëpp laa boo ko jaam jaam donc vraiment loolu sax doy détail mais maa ngi ñaan ñëpp am jaam. non comme maanaam soo déggee tey xam nga dafa wax àdduna gépp dégg ko tey fils de Balla nee na fanaan naa buntu kër Balla Gaye numéro 2 ba tàyyi mu am combat daj na lu metti ngir ngir yow kon ku ne xam na ni kooku cofeel lay waxee man dama wax ne fils de Balla sa rakk la cofeelam moo tax mu génn wax. en tant que mag yaa ko mag lan nga koy wan ci nan nga ko mag yàlla xam ne dama koy ñaanal jàmm rek loolu kese laa koy ñaan jàmm rek laa koy ñaan yàlla na ko yàlla defal jàmm aw ma ci tont yàlla na ko yàlla defal jàmm non non xam nga ko dëgg yàlla ah ah, ah donc surprise lan ngay wax lan ngay maa ngi sant ñëpp di gërëm axlu làmb bu baax a baax di gërëm njabootu làmb di gërëm journaliste bi nekk ñëpp jéy moom ñëpp xam nañu ne digganteem ak liiru moom sot seeg def si la Abdoulahat ñu ngi lay gërëm lamin ñoo ngi lay sant baax gis nañ ñi nga taxaw lii. waaw kon ah. donc vraiment ñu ngi lay ñaanal. waaw ñoom noo ñoom ñaar ñoom ñaar ay doomu nday noonu Lamine nee na. Lamine nee na xale bi moo moom la ko Lirou jaan waroon tudde ku ne xam ne ni keroog Lamine bi mu xewlee fure ci Kër ma saar liiru Diane dafa taxaw tey bi Lirou Diane